TV da ngeen di dégg saa su ne mu di ko ziar ndax lan kóolute ak kóolute bi nga xamante ne am na ko seen diggante ñoom ñaar. Euh, mu mel ni tey euh, am na lu bari loo xam ne fas nañ ko waxtaanee ci mbirum oustaz Iran Ndao euh, Assane nuyuwaat nañ la di la wax yaa ngi sa kër ci jàmm ji info waaye itam kër oustaz Iran Ndao. macha allah kontaana naa si sëriñ bi maa ngi lay ziar di la jox sa wàcc yow yaay xalifa général mm-hmm. sëñ Moutaga. jërëjëf macha allah kontaan naa si studio bi. parce que euh, studio bi mu ñëwee dama see kontaan loolu macha allah di studio Iran Ndao loolu moom cofeel la. ma bàyyi sama kër ñëw si studio bi. di présenté wu mel ni maa ma mel ni Iran Ndao moo toog macha allah. alhamdulilah macha allah kontaan naa si vraiment na ñëpp bàyyi xel si jàmm ji info. mu nekk site bu nga xam ne vraiment na ko ñëpp bàyyi xel parce que surtout surtout Iran Ndao la. jërëjëf macha allah tabarkalla Assane mu mel ni dañuy ñëw. ci li nga xam ne vraiment ci euh, déplacement bi nga xam ne def nga ñu jot bi bariwul mm-hmm. boobu ba léegi yaa ngi def ay euh, pub reportage reportage yoo xam ni mm-hmm. wax dëgg yàlla dañ lay fekk sa kër waaye tey nga bàyyi sa lépp ñëw tey ci studio bi mm-hmm. ne tey man maay dox ak sama tànk wala euh, yegg ci ba ci yow euh, daanaka mën a def ak jotaay ci li nga xam ne ci ki nga xam ne ñoo ko bokk muy oustaz Iran Ndao Assane mu mel ni dañuy njëkkee rek ci oustaz Iran Ndao kan mooy oustaz Iran Ndao balaa ñuy sori sax di dugg ci li nga xam ne moo ñu fi indi dëgg-dëgg oustaz Iran mooy doomu daara juddoo si keppaaru daara màggee di jàngale si keppaaru daara kooku mooy Oustaz Iran di nit ku nit ku simple nit ku nga xam ne diina rek moo ko ñor ak social nekk nit ku baax nit ku ñàkk ki ñaan nit ku mën a dimbali doomu aadama muy nit ku nga xam ni doomu daara la dëkk Tiwaawan di jàngale Tiwaawan di fanaan yi di reere Tiwaawan di ndekkee Tiwaawan kooku mooy Cheikh si gàttal tabarkalla Assane mu mel nii ubbi nga ci benn jotaay mhm. assan ñu si bëri bari gis nañ sa diggante yaak moom fan la mhm. tàmbalee ndax ñu bari dañ leen dañu lay gis ak moom ñu bari ku ñu xam ne oustaz Iran Ndao gis mhm. Assane fi wet mhm. euh, seen relation fan la tàmbalee waaw suñu relation nag dafa yàgg rajo Sud FM ah, bu Thiès bu Thiès d'accord moom fa la fa la liggéey ba tey jii fa lay liggéey d'accord ma koy déglu Sud FM man ma dëkk Thiès di ko déglu d'accord mais rapport bu tax ma sama diggante yi moom gën a neex oustaz Alioune Sall la d'accord parce que man oustaz Alioune Sall am naa ak moom oustaz Alioune Sall. ànd naa ak moom vingt ans tuddee naa ko doom jàngal na ko alxuraan bu mu mokkal mi si daara ji. bu relation bi dafa la jógee parce que oustaz Alioune Sall da defal Sud FM Thiès conférence. Mhm. chaque chaque corps. waaw si weeru koor weeru koor bu oustaz Sall doon defee conférence sama relation ak oustaz Iran fa la commencé toll na si fukki at ak juróom. Hmm. fukki at ak juróom. d'accord du dugg Dakar mukk di dem conférence woowu ma parce que oustaz Iran xamul Dakar. d'accord mu amee conférence daana ma Assane. am na ni bërëb sàngam conférence. Mhm. ñëwal fekk ma croisement Cambérène ñu ànd nga wax ma bërëb sam mhm. ma yóbbu ko ba mu egg ñu def ko programme bi ba programme bi jeex mu wàcce ma croisement Cambérène mu dellu Tivaouane. d' accord mhm. jërëjëf Assane mu mel nii dinaa ñëwaat tuuti ci. programme bi nga xam ne faral nga koy di def saa su ne muy conférence bi nga xam ne daa nga ko animé mhm. euh, di ko doxal fii ci Dakar mhm. euh, ci unité 2 ci jumaa unité 2 bi mhm. mu mel ni am na benn conférence boo xam ni mbokku téléspectateurs yi euh, Assane mi may wax nii oustaz Iran Ndaw ak oustaz Alioune Sall seqoon nañu sax conférence boobu mu nekk conférence bu am solo mbokku téléspectateurs yi dañuy dem seetaani conférence boobu dellu si waat bu ko defee rek ñu daal di ñëwaat ci plateau ma leeral sama làmmiñ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 wax ji amoon tur mu jëm ci oustaz Alioune Sall te wax ja rafetul waroo ko ko jottali waroo ko ko jottali soo ma ñorul du ma la su ko oustaz Alioune Sall moomee nag lu ñu xaritoo xaritoo danaa ne Mountakha oustaz la mu wax fee d'accord na turam lay tudd waaye yéen da ngay gis dañuy raas fii raas fee dóor fee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 koo xam ne yow wax rek di wax rek te mënoo ne defal naa yàlla dara. jërë yi yéen a ko seetaandoo ak ñun gis ngeen conférence boobu Assane. Mhm. ba nga gisee image bi lan la la def. muy mhm. conférence bi nga xam ne unité unité 2 la woon vraiment complicité oustaz Iran sama xol dafa sedd. Euh, mënuma ko munuma ko wax. mais dafa sedd parce que jamono yi oustaz Iran dara jotu ko. mu ngi si santé bu baax macha allah. Mhm. ñoom ñaar man dong. maa leen mës boole si plateau si conférence. à part loolu muy Oustaz Alioune Mbaye Oustaz Iran toog nii Oustaz Alioune Sall toog. Hmm. man dong maa ko am maa ko am Dakar à loolu Oustaz te loolu bu amee si Oustaz Alioune man maa ko dox. Hmm, hmm. macha allah macha bii dafa am lu may fàttali. bis bi dafa conférence ba pare. wutal Oustaz Alioune Sall xaalis bu bari. dëgg ko yóbbul bii àllarba la yóbbu ko si daara ji. Oh te pourtant man maay def conférence bi lu tax man wutaluma xaalis. dafa yëkkati si poosam. Mm-hmm. lu am solo jox ma. mu dem ba conférence bi jeex mu mu wutal oustaz Alioune Sall xaalis bu bari jox oustaz Alioune Sall ni ko sama àllarba la. loolu mooy woyef. loolu moo ne oustaz Iran nit gënu ko. gis nga conférence bii da waroon naa ko def. Mm-hmm. mais feebar bi moo tax defuma ko. parce que du ma wor. Mm. parce que dañoo ànd muy neex mu xaw a tawat bis bi ñëw man ni du ma ko def naa bàyyi bu mu wér. ñu ñu ñu programmé ko mu ñëw teewaat ko Oustaz Alé Oustaz Sall teew. ma ah. doog a ma doog a eggale programme bi. macha allah loolu moo tax programme bi ren amul. alhamdulilah ah muy lu am solo mbokk yi gis ngeen conférence boobu ñu leen wan sànq rek muy conférence bi nga xam ne moom mii moo ko doon taxawal fii ci Parcelles Assainies mm-hmm. unit de fii ci Ndakaaru gis ngeen ko Oustaz Iran Ndaw Oustaz Alioune Sall complicité bi tawaatkaal la euh, cofeel bi nga xam ne am na seen diggante euh, Assane. Mm-hmm. dañuy ñëw tuuti nag ci tawat bi nga xam ni mm-hmm. euh, bu mu nekk tawat boo xam ni. Euh, départ bi coow yi bari woon na ki média bi. ñu ci mhm. bëri dañ ma doon woo. tout mhm. temps di ma woo. Mhm. xam gi ma xam oustaz Iran Ndaw euh, moo tax mbir mi euh, daanaka du ma ci bëgg a soog teel a ndax lu tax du ci bëgg a teel a Iran dafa am ni muy doxee. Mhm. Eh, dafa am na muy doxee moo tax mhm. lu ñu koy bindal wala ñu koy waxal. faw nga xam ko te na wóor. Mhm. yow mi nga xamante ni Assane eh, tawat bi durant. ku jéggiwoon oustaz Iran Ndao nga ci tawatam bi. Eh, bëggoon nañu xam déroulement bi départ bi ba ni oustaz Iran Ndao génnee. dem fi nga xam ne moo di bitim réew. noo jàngatee moment boobu. waaw tawat bi xam nga oustaz Iran jàmbaar la jàmbaar fëq. ndeysaan bañkat la jàmbaar la dafa mun bañkat la feebar bi ñu ko doon attaqué. mais xool dundul feebar bi am na si weeru mois de ramadan bi am na ñu ko organisé woon conférence waa hôpital Nabi Choucair hmm. suma ma Nabi Choucair Nabi Choucair hmm. fekk mii clinique Madeleine hmm. ñu sampal ko perfusion heure bi jot mun ma Assane dama wooyu docteur bi mu dindi perfusion ma dem dafa leen conférence ñëwaat mu sampaat ko te mi ngi si feebar bi mi ngi koy mi ngi koy commencé wallahi azim yàlla sedd na lu may wax nii maa ngi toog docteur bi dindi perfusion bi tafaatal ko ko fii ñu jël chauffeur bi ñëw ñu dugal ñu dugal ko si oto mu dem ko af conférence mu pare mu ñëwaat sa sama ko prévision moo doog a ñibbi sama kër kon kon nit kuy bañkat mooy def noonu oustaz Iran man tuddee naa ko doom. ko ko doom tuddee oustaz Alioune Sall doom. macha allah koo koo koo ko tuddee doom mm-hmm. oustaz Iran ku baax la diine rek moo ko ñor mm-hmm. sëñ Moutaga oustaz Iran mm-hmm. dem ba toog. toog ci douche di jàngale nan la ñuy sangoo farata waaw dem tëdd néew nekk néew nan la ñuy sangee néew yéeg si garab nan lañuy ñuy boo jul waxtu julli bu la fekkee foofu non taxaw si géej di jàngale xarum tabaski nan lañ koy rendee sooy dem tabaski yan xar yan xar nga war a jënd dëgg la sooy dem toilette nooy raagoo loolu ban oustaz moo koy jàngale. Mountaga gis nga ko est gis nga ko. bu baax bu baax. gisoo ko. wallaay moom la yàlla may facilité boobu. Mm-hmm. parce que nit ku woyof la. nit ku woyof moo mën a jàngale loolu. parce que diine boo dee jàngale boo diisee doo mën a jàngale fa nga woyof. Mm-hmm. te oustaz Ila oustaz Iran yàlla da ko suturaal moom diine rek moo ko ñor amul leneen lu ko ñor. diine rek jàngale moo ko sax ñun dañ ko namm si plateau Sen TV mu toog di jàngale. wallaay ndeysaan. ñëpp dañ ko namm macha allah. wallaay sax mhm. euh, li ñu doon wax ci benn moment Assane mhm. euh, dégg nañ ñu di ko wax mhm. euh, am ñoo xam ne sax dem nañ ba bind ay article di wax ci mbirum xëy na demande aide aide sociale parce que bind yi bari woon na. am ñoo xam sax dégg nga ko ci yenn. revue yoo xam ne def nañ ko ci yenn. groupe de presse yi nga xam ne jot nañ ko génne. est-ce que réellement loolu am na. bañ ma waxee loolu man. gëmuma ko dama doon laaj yow mi ko gën a jege. loolu amut. d'accord loolu musul am oustaz musul taxaw fen di demandé loolu ku ko wax waxul waxuloo am loolu amul jegewul ko am parce que oustaz yàlla suturaal ko mën na kanam mën na ginnaawam. alhamdulilah. mën hmm. na kanam mën na ginnaawam. Hmm. yàlla yàlla yàlla yàlla seetaan ko. d'accord loolu ku ko wax amul loolu musul am fen d'accord ku ko wax nga loo xamul si biir feebar bi nag. Macky Sall ñëw na yónnee ndaw. président Macky président Macky Sall. parce que Marème xaritu xaritu Iran la. loolu la waaw xaritu Iran la. Marème moom képp ku xam Iran xam ni xaritam la. d'accord Macky Sall yónnee na ndaw bu mu yónnee. ñu defar passeport Iran. ñu defar ko visa mu yóbbu ko France. dama faji ko bu mu wér mu ñëwaat. loolu Macky sàll moo ko def te loolu gis nga ku ñu nenañ ku ko gis nen ñu nenañ ni Macky Sall moo def loolu. te loolu moo def dafa am solo. Mhm. parce que fekk nit ku nga xam ni daf njëriñu askan wi la. mu Iran mu seppinteew ko yóbbu ko ba France faje ko pour mu ñëw kon mu ñëw kon na liggéeyam loolu Macky Sall franchement lu mu war a def dafa rafet. dafa rafet rafet na lool sëñ Moussa. Euh, moment bi ñuy ñëw foofu Iran ñu war ko évi euh, évacuer maanaam yóbbu ko France. jour boobu fa la fekk. fa la ma fekk waaw. lan nga sentir ba nga xam ne Iran ngi quitté war a dem France yëg-yëg cofeel moment boobu noo def. waaw jour boobu moom nekkuma. ndeysaan parce que ñoo nekk ba heure bi mu war a départ. su ma jumul ñoo nekk ba 16h h ñoo bokk añ bis boobu ñoo bokk añ. si mhm. nekk man ak moom may añ di lekk muy jël di ma tegal. billaahi wallaahi wa taalaahi ñoo bokk añ. Oh si am na kéemaan oh, nit ku baax la. nit ku nit ku nit ku nit ku fonk nit la gis na bu ma demee gàmmu ñooy bokk añ. néegam lay fanaan lalam boobu muy tëdd fa laay tëdd su lekk jotee ñooy bokk lekk mu rax su ma raxasu ñu bokk frenkulaayu lu muy lekk lay lekk lu muy naan lay naan ay muusam yu nekk foofu ay ñaari kilo yàpp la leen jënd chaque jour ginnaaw si Iran kiite na mm-hmm. dem France mm-hmm. moment boobu yéen a ngi doon déggante. Hmm, ñu ngi déggante waaw. bu nekkee France waaw bu nekkee France ñu ngi doon déggante. naka nga déggoon état am avant muy ñëw ak ni nga ko doon déggee téléphone avant muy. waaw bu muy dem wax dëgg yàlla xaw na tawat. mais bu mu ñibbisee. Hmm. dafa indaal tane macha hmm, allah. alhamdulilah alhamdulilah na ko Sénégal yëpp dolli ñaan. Oustaz Cheikh Ibrahima Badiane. di Iran Ndaw na ko Sénégal yëpp ñaanal mi ngi tane bu baax macha allah na ko ñëpp séentu bi si néew. incha allah dina dël commencé liggéeyam. tabarkalla mbokku téléspectateurs yi ndax moom mii dafa woon pour nekkoon ak oustaz Iran Ndao avant ñu koy yóbbu fi nga xam ne moo di France euh, ci taxawaayu président Macky Sall soxna ma Marième fay Sall donc moom mii donc moom war nañu mën a wax moom mi ko jege. Mm-hmm. Euh, avant muy quitté bu jour bi mu war a ñoo añandoo kon kii moom ci boppam moo ñu mën a wax ki loo xam ne leer na ci oustaz Iran ndaw mm-hmm. Assane li ñuy tàggatoo rek. Mm-hmm. muy kaddu goo xam ne xëy na duñu la téye ndax temps bi. mayewu ko jot bi mayewu ko. Euh, tey oustaz moment bi xel yi macha allah dal na waaye li ñuy gën a yokku rek mooy ñaan yi. ñaan yi waaw donc yan kàddu ngay tàggatoo. Mhm. Euh, Assane. waaw kàddu yi may tàggatoo mooy di gërëm sénégalais yi. Mhm. parce que sama téléphone du fay. waaw saa su nekk nit ñi ñu may woo di ma laaj fu état Iran toll. Mhm. waaw ma leen si wax lu ma xam. parce que loolu cofeel la su ñëpp gisee ni ngay ànd ak oustaz Iran mu tawat nit ñi di la bàyyi xel di la woo. loolu Iran ma ko def. mais defuma ko sama bopp. su ma nit ñi xamee ba naan kan mooy Assane. Mm-hmm. Cheikh Ibrahima Badiane moo tax muy moom moo tax nit ñi xam ma. Mm-hmm. soo gisee ñu bari di dimbali am na ku tax ma xam ko am na koo xam ni moo tax ma xam ko muy Pa Matar Sall. Iran moom ko présenté mais lu may jëriñ kenn xamu ko loolu yëpp mi ngi jóge ci Iran te bu soxoroon du ko def. macha allah moo tax Iran man mun ma ko fay turandoo bu mu ko tuddee su ma amatoon beneen doomu góor tuddawaat ko Cheikh Ibrahima Badiane. ñu ñaar oh. su beneen juddu woon léegi ma tudda ko Cheikh Ibrahima Badiane. gën a dëggu sama diggante ak moom. parce que loolu démb la woon tey soog a ñëw. kon loolu dara mënul tax ma woon ginnaaw Cheikh Ibrahima Badiane. si kanam la incha allahu rabbi na ko Sénégal yi ñaan suma xarit la Iran. Iran suma xarit la. Ilan suma xarit la. tabarkalla tabarkalla jërëjëf Assane. jërëjëf santaan nañ ko kii mooy assan bu oustaz Iran Ndaw yaakaar naa ba ma ko ci njëlbéen rek waxoon naa ko muy plateau groupe des médias seen euh, seen diine bi ngay gis ni oustaz saa su yëkkatee kàddu da nga dégg mu naan Assane euh, moom mii nag lay wax yaakaar naa ni gis ngeen publier reportage bi leen wan euh, conférence boobee nga xam ne moom mii moo ko taxawaloon oustaz Iran Ndaw ñi ko fa ak oustaz moom nii mooy plateau boo xam ne boole na leen ko woon muy mm-hmm. conférence boo xam ne boole woon na leen ko kon mu nekk loo xam ne nekkul woon lu yomb mm-hmm. assan sant nañ la Euh, di la gërëmaat ci sa mm. disponibilité mm-hmm. waaye tamit di ñaan laat oustaz Iran Ndao suñu boroom gën koo yokk féex ak taw féex bu yaatu yaatu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu a dellu si waat euh, ci euh, ji liggéey l'islam bu baax a baax a baax kon Assane ñu ngi lay sant bu baax mbokk yi loolu moo nekkoon seen plateau noo ko jàngatee ak Mouhamed Lamine Mountakha fekkoon fekk Assane mm-hmm. di leen sant di leen jox plateau dig daje ba beneen yoon jàmm ji info waaye nag informer, éduquer